Bonjour et bienvenue sur euh, votre plateau euh, bis ni ki tey nag euh, si deuxième partie bi rek la ñuy dooreewaat euh, ravi de vous retrouver laa leen di wax tout d'abord parce que xam ngeen ko toute la semaine gisoo leen li nga xamante ni rek moom mooy seen émission boobu di seen cas seen cas nag tey dafa ñëwaat ci beneen thème beneen euh, ak yeneen daanaan yoo xamante ni rek dañu rejoindre ci biir plateau bi mais laata may dem ci découverte ki nga xamante ni moom mooy suñu invité tey damay nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokk plateau bi ki ci mel ni Ramatoulaye Ramatoulaye maa ji nuyu suñu mbokk internet yi également ainsi que suñu caméraman ak euh, ñooñ nga xamante ne ñooy suñuy invité du parce que tey suñu invité yi bëri nañ ah. <laughs> ji rek nekk ci plateau bi. am na mm-hmm. ñeneen si ginnaaw di leen nuyu bu baax a baax euh, di leen remercier aussi. ayca am na solo loolu comme ni leen ko Ramatulaay waxee rek tey ay naan lañ am mm-hmm. am na nag ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi fi ci ginnaaw donte nag ñëpp duñ mën a ñëw ci plateau bi rek waaye dañ ciy dalal kenn ki nga xamante ne tey moo leen fi toggal di seen représentant ñu koy wax euh, Mouhamadal Seck Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax kontaan naa ci invitation bi waaw comme ni nga waxee rek. Mhm. ñu bëri nañ fi mais ñëpp mënuñu wax tamit. Mhm. dañuy jël rek quelque ñu neexal affaire bi yaa gën a xam. Eh, merci. ay mi noonu am na solo ñoo leen ko waxoon ne seen kaa nag gis ngeen ko toujours ci ay euh, facettes yu bees lay dem tey nag euh, li nga xamante ne moom mooy jeunes yi ñoo ñu rejoindre ci biir euh, plateau bi ñuy waxtaanee nag muy loo xamante ni kaa bu am solo la. Mm-hmm. Ramatoulaye tey nag dañuy génn ci lépp luy loo xamante ni politique la actualité fait divers ba tey sax actualité la mais dañuy dem ci beneen facette boo xamante ne nii dama ko découvrir il y a pas longtemps. mu nekk benn cas boo xamante ne personnellement ça m'a touché mhm. y a une amie bu ma raconté une euh, de son vécu une mhm. partie lay wax sax euh, mu nekk mu on les appelle les charlatans on les appelle des marabouts entre guillemets am nañ ay noms yu bëri parce que mënatuñ xàmmee kan moo ci kan mhm. ak kan moo ci mën lii ak kan moo comme on dit qui est qui et qui quoi xamatuñ ko ci biir euh, li nga xamante ne rek mooy réew mi alors une de mes amies m'a raconté une histoire me disant que Euh, dafa rencontrer par exemple une personne bu ko euh, qui a réussi seetal ko qui a fait les comme ci loxo mais moom ci loxo wax ci moom euh, loo xamante ni c'est vrai une partie boo xamante ne bi mu ko ko waxee elle y a cru que ni le gars dafa am xam-xam mhm. léegi le gars après ça mu invité ko ne ko mën nga ñëw ma defaral la ay garab ay sangat pour sa yaram pour enlever tous les mauvais esprits yi nga xamante ne moom moo nekk ci sa yaram la fille bon elle a été d'accord elle a dit que oui j'arrive ils ont fixé un rendez-vous mu nekk boo ñëw da ngay àndaale benn affaire boo xamante ne moom mooy nekk sa sarax genre mm. ah, da ngay andi benn sër sër bi euh, drap blanc la sër bu weex lay nekk tu vois euh, léegi la fille bi muy dem mu yóbbaale lool bi mu demee mu defaral ko ay sangat mu sangu chez le gars d'abord mm. tout en prenant Euh, bi mu paree mu ne ko léegi nag ce qui reste à faire c'est que drap bu bi nga xamante ne yow moom nga andi moom ngay lal on va vous m'excusez du terme on va coucher ensemble. Mm-hmm. c'est avec ça qu'on va prendre pour ma defaral la li ma lay defaral tu vois ce que tou voudras que ce soit de l'argent que ce soit euh, du succès que ce soit tout ce que tu voudras dans ta vie. Mm. heureusement pour elle qu'elle a refusé. Parce que le ga avant que moi entame tous ses euh, démarches, lui a demandé si elle était vierge. Elle a dit oui. Donc, disons que le gars voulait de sa virginité. Mais disons qu'il y a le moment que ce bébé euh, tombe sur le panneau du gars. Parce que qui c'est l'homme Apparemment, elle est sauvée. C'est là qu'elle est rentrée en me racontant soit bon non. Et j'en suis sûre et certaine qu'elle n'est pas la seule. Mm. Bon, c'est une victime. qui a été sauvé disons que y en a d'autres qui pas pu échapper ci cas noonu nga xamante ne am na te mu nekk loo xamante ne dafa toucher société bi toucher euh, xale jigéen ñu bëri ñu nekk ci victime que ce soit góor ba si jigéen ah. mhm. xam naa ne suñu invité bi moom dinañ ci mën a wax en tant que góor parce que am na tamit ay góor yoo xamante jaar nañ ci lu ñu mel mhm. Ramatoulaye tey loolu moo nekkoon cas bi nga xamante ne la leen andil ci biir plateau bi euh, mi ngi noonu Mariama doy ñooñu noonu duma leen woowee euh, ni charlatan ni sëriñ ndax suñu sëriñ ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen delloo seen wàccuwaay. Mhm. parce que ñoom lu baax lu ñuy def te lu baax rek lañ xam si ñoom. Mhm. ñooñu je les appelle des arnaqueurs. Mhm. ñooñu ay nit yu bon lañ def lu bon rek a leen tax a jóg parce que ku dajeek benn xale bu jigéen en plus euh, il a demandé. à savoir si la fi elle était vierge. donc moom on peut dire que donc euh, virginité am la soxla woon. Euh, mu invité ko këram bëgg koo def naka su dul noonu. Mhm. te kooku noonu bu jugee ba am force boobu noonu di def lu mel noonu wala di invité xale bu jigéen bi dans sa maison c'est parce que peut-être am na fu mu ko réussir ba pare. Mhm. loolu moo ko gën a jox force. malheureusement euh, genre fee yi bëri na ci dëkk bi. Mhm. loo xamante ne euh, doy na waar. war nañ koo waxtaanee ndax yee ndax yee loolu yee ak yedd ñooñ nga xamante ne ñooy suñu mbokk jigéen. Mhm. parce que la plupart malheureusement ñun ñooy subir genre yu mel nii. Mhm. Euh, dëkk bi banditisme bi bëri na arnaque bi bëri na. ak euh, yeneen ak yeneen doy na waar Mariama. doy na waar xam naa ne voilà na ci gën a yaatal ak suñu invité bi. effectivement xam naa moom dama koy bàyyi rek mu joxe li nga xamante ni la ci jàngat AVM en étant tout jeune xëy na am na ay sœurs am na ay euh, copines ay xarit yoo xamante ne nii du ñàkk pour rek bu mën leen dimbale ci yu mel noonu wala ñu dund lu mel noonu. ok waaw comme li nga wax rek gars yi moom. comme ni mhm. ngay wooyee sëriñ man jàpp naa man mhm. mooy ki lay ñaanal ki yàlla affaire yooyu mhm. mais mënoo di jël nit naan sëriñ nga pare ko defloo comme li ngeen wax noonu bëgg a jël ay virginité ak micro man ànduma si ñi quoi parce que ñoom tamit comme ñoom xam ne dañoo bon ba pare. yow loolu ñëw di dem si ñoom yow am nga xel quoi yow xam nga ni ñii nii. ce n'est pas des des des des de bonnes personnes quoi. yow mënoo ñëw naan da ngay jéem a dem ci ñoo xam ni xam nga ni ñii baaxuñu Mm-hmm. xale jigéen ñi li ma leen wax mooy yàlla mooy mooy mooy maye quoi. Mm-hmm. nekkul ni comme dem ci benn sëriñ mu lay defal miracle amul. liggéey rek a am liggéey. mënoo ñëw naan da ngay dem ci ci ay nit yoo xam ne si nii bu fekkoon sax ci li ñu xam ne la quoi comme alxuraan wala affaire yooyu noonu. Mm-hmm. ñu ñaanal la mais mënoo dem ci ñu lay ñu lay digal ay sacrifice yoo xam ne. ñi nga xam ne ñu baaxul dangay def. pour pour am ci pour am ci yenn kii yi. man lu may lu may li may jox toor moom dëgg la ñoom lañ xam nañu bon lañ ba pare mooy Mm-hmm. mais mooy jigéen ñi quoi. Mm-hmm. jigéen maam nit da war a da war a ànd ak sa xel. Mm-hmm. mais bañ a bañ a di bëgg succès trop bay def yoo xam ne si nii. après da nga koy da nga koy da nga koy. mais yow tey lu tax nga jox tort jigéen ñi parce que euh, jigéen ñi tamit euh, ay ay nit lañu seen dañuy ne euh, seen xel ñi ne seen xel matut loolu nga xamante ne mooy jigéen lu tax yow condamné woo sëriñ bi parce que sëriñ bi moo ko fen euh, na ma na ma yàlla baal euh, pas sëriñ bi mais kii bi je veux dire arnaqueur bi quoi euh, mhm. voilà charlatan bi xam nga jigéen ñi yow xam nga xam nga jigéen moom moo gën a bëgg affaire de ay succès affaire yooyu noonu ñoom mm. succès danañu jaral lu gumba quoi mm. rek bëgg bëgg bëgg am succès tax ngay ngay def loo xam parce que yow genre yooyu da lay leen ni góor kon mm, mm. man man góor yàlla xam naa sama bopp mm. parce que ma jaral ma nekk di def di dem def ay sacrifice mm-hmm. leen mais disons que dañuy jaral mm-hmm. ñu ñuy def loo xam ne si nii mm-hmm. da gis sa jigéen bu waaw pour pour pour bëgg a téye jëkkëram day dem def loo xam ne si nii bu ko jëkkëram xamoon tey ji da koy da koy da koy da koy kii quoi da koy da koy waaw da koy da jigéen yi moom lu ma la wax rek ñoom laay jox toor quoi parce que ñoom am nañ ñi ngi le fait que yow nga nekk nit bu intelligent war nga xam ne lu mhm. baax ak lu bon quoi mhm. mais mais mhm. yow le fait nga ànd ak nga ànd ak sa xel xam nga ne lii lu baax la lii lu bon la mais mënoo fi bàyyi lu baax dem di def lu bon après léegi ñu bëgg ñëw di la yërëm dina la yërëm benn côté mais benn côté lay jox tort quoi comme li ma wax rek benn côté da lay jox tort parce que comme li ma wax rek lu baax moom ñëpp xam nañ ko jàng école lu mu jàng école jàng wax ne ne lii moo baax ak lii moo bon. Mm-hmm. yow mënoo fi bàyyi lu baax. Mm-hmm. dem di pratiquer ay. ay léegi loolu yoo xamante ne ni baaxul <laughs> am na solo c'est vrai mais ce qu'il faut pas oublier euh, ci histoire boobu noonu Ramatoulaye mooy que ni dafa wax xale bu jigéen bi le gars yi la réussi à convaincre tout d'abord la fille mm. parce que apparemment li mu ko wax euh, am na ci yu dëgg xëy na coïncidence la mm. euh, hasard la c'est le pur hasard mm. xëy na yàlla am na lu may ku góor kooku noonu mais moom euh, utiliser ko à des yoo xamante ne nii moom la nit ñi di xaar ci moom mais il a fait le contraire mm. tey jii euh, jël xam-xam boobu noonu bi ko yàlla may utili ko utiliser ko à des fins yoo xamante ne ni day ñuyu li nga xamante ne jigéen ñooñu ñoom ñoo koy seet wax na ko léegi xëy na si jigéen ñi lañ ko gën a gisee mais n'oublions pas que yoo xamante ñu ngi subir lu mel noonu parce que ni ku góor ki amee xam-xam boobu noonu la ko ku jigéen amee surtout di ut ku góor ku ko def loo pour vous dire que ni que le que ce soit la fille euh, euh, de même que le garçon tous les deux ils sont exposés ils sont victimes euh, léegi nag euh, ce qui ne faut ce qui ne faut pas oublier dans l'affaire mooy que ni dañuy faral di dégg yenn situation yoo xamante ne ni tey dañuy naan la dem nga ci sëriñ mu ne demal nga andil ma ndoxu góor mhm. koo xamante ni xelam anta xelam yàlla dafa wàññi xelam ramtulaay mm. nga gis ñoo xamante ni dañuy dem fekk koo xamante ne ni boo ko dimbaliwul mm. wala ko nuyur mm. ñi nax ko andi ko ba si biir këram defoo ko loolu nga xamante ne leen sëriñ bi sant léegi nag liñ ciy gis lu gën a bëri mooy mujj boo xamante ne du mujj bu rafet mujj boo xamante ne ni bu ñu démb doon tey dañuy regretter te pourtant ils avaient le choix de pas dem ci loolu noonu nga xamante ne mais malgré tey jii succès jaral na leen ko xaalis jaral na leen ko mm. récupérer waat li nga xamante ne moom mooy seen amul jaral na leen ko mu nekk ay affaire yu bëri yoo xamante ne doy waa daara Matoulaye euh, Mariam man fi may commencer rek mooy nga ne le bu mu dajeek moom mm-hmm. dafa xool loxoom mu nekk mu wax ko wax affaire yoo mi ngi si moom mm-hmm. euh, il faut juste juste savoir une mm-hmm. gis nga sëriñ yi am na ñoo xamante ne si téléphone yi sax li ñuy liggéeyee lu mel noonu man am naa euh, jot naa see am du benn yoon du ñaari yoon dañ téléphone nee la sa famille maa ne mu ne la xamante nga ak nit ku gàtt ku ñuul mhm. xaw a am yaram wala mu ne mhm. la xamante nga ku ñool ku xees euh, xaw a am yaram mhm. affaire yu évident lañ lay jox de telle sorte que da lay leer ni lii dafay am mënul ñàkk yow dans ta vie dans toute ta vie xamante woo ak koo xamante ne dafa xees njool sew mi ngi noonu tu genre évident yooyu noonu la ñuy utiliser wax la ko ba pare nee la kii moo la bëgg a def lii léegi nag si tu es naïf. si oh. si si yow da nga ciy daanu forcément da lay am te nit ñi nag loolu la war a moytu gis nga Mariama. Mhm. Euh, ñàkk imaan baaxul nit da mm. gëm yàlla. Mhm. gis nga boo gëmee mm. yàlla am na yu bëri da nga ciy muslu te ngay julli di ñaan. tu vois mhm. booy ñaan yàlla mën na laa defaral lu nekk gis nga sëriñ yi lan lañ mën. sëriñ dëgg-dëgg dafay ñaan te buy ñaan ci yàlla lay ñaanee. du la jox ay affaires yoo bon. di ne ay demal def diwli yi def diwli yi mm. te nit ki nit yi nañ xam ne nit ki fii nii loo def sa waay si sa si yow lay on appelle ça le karma on appelle ça le karma voilà le karma nag dafa doon li am mm-hmm. tu vois donc bu ñu xasee ba toll ci Euh, genre situation yooyu nit ñi nañ xoolaat seen bopp. Mhm. nañ gëm seen bopp surtout gëm sa bopp. dafa am solo parce que nit ki boo gëmut sa bopp loolu mooy tax ba ngay dugg ci yenn. Mhm. lan moo jar dem ci sëriñ di naanu liggéeyal ma kii mhm, góor. pour ma am li wala liggéeyal ma pour ma am bii alal wala li jaru ko Mariama je pense que jaru ko. Aïcha mu nekk lu am solo mais man laataa may tàggatoo ak moom moom tey étant jeune di mm-hmm. gis ni ñi nga xamante ne ni euh, ñoom ñoo nekk euh, ay moromam di dund lu mel noonu wala à l'avenir war nañ mën a dund lu mel noonu tey ji yow lan nga leen di wax rek pour ñu jël seen précaution parce que man nit ki mën ma concevoir yow mën a julit nga wala chrétien nga kii boobu mënta nekk mm-hmm. boobu mënta mm-hmm. nga yow nga xam ne say texte lii la wax Mm-hmm. yàlla lii la wax ah après nga bàyyi ko fa dem naan da pratiquer kenn xamul mm-hmm. ay magie noire ñoom xam ne loolu baaxul loolu même animiste yi sax mm-hmm. ñoom xam nañu loolu c'est pas c'est pas nekk loo a def man lu ma gëm liggéey mooy maye quoi liggéey mooy maye mm. àdduna loolu mënti def ci àdduna boo liggéeyul tamit doo am mm. le c'est le travail paye quoi man loolu mm. laay conseiller samay euh, comme ni nga ko waxee samay morom affaire yooyu noonu wan leen wax leen ni <laughs> loolu noonu ay ay ay ay futilité la quoi amul benn njëriñ da lay da affaire yooyu noonu l' essentiel mooy nit ki da ngay liggéey. gëm yàlla. yàlla mooy sa destin quoi li nga war a am tôt ou tard. da ngay am que dafa am ñoo xamante ne dañoo jël seen destin. ak lépp loo xamante ne war na leen arrivé dans le futur teg ko ci seen. jël seen yaakaar yëpp teg ko ci benn. séeréer loolu loolu mooy mooy mooy mooy mooy euh, bi quoi mooy. mooy mooy mooy mooy déli bi. Mhm. le yow nga jël sa lépp. dem ko mhm. ci benn benn waay boo xam ne kenn xamul fu mu jógee. Mhm. yow yaa ngi yaa ngi mettre sa vie en danger. surtout l' essentiel mooy li ma wax rek. mooy da ngay da ngay liggéey bàyyi yàlla moom mu décider quoi. Mhm. ay mënoo di changer sa destin naan da jéem a dem ci ay. Mhm. nit yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge. daan da leen di da nga leen di da nga leen di mais Mariam est-ce que xam ngeen sëriñ yooyu tamit ñun na leen may parce que euh, euh, mhm. ñoo leen may force parce que boo gisee ba ñuy dem di insister di woote di insister di insister parce que man euh, il m'arrivait si si biir mois bi ma jot ci ay trois appels yoo mhm. xamante ne c'est la ah, mêmes délits yi lañ day wax ah yow mhm. si tu si bu dee tuer naaj rek mën nga ci daanu mën nga leen je suis ravie que li nga xamante ne tey moom mooy suñu invité mu conscient ci fait boobu noonu te yaakaar naa ñoom yoo xamante aussi ñu ngi ci réew mi nekk ay ndaw te war a jànkonte lool à l'avenir aussi ñoom ñu ngi ciy am euh, benn li nga xamante ne moom mooy euh, prise de conscience euh, ba tax na ëllëg ci biir bu ñu jànkonte yu mel noonu wala ñu am seen ay mbokk autour de leurs entourages yu mel noonu dinañ xam comment s'y prendre Seck ñu ngi lay jaajëfal di la remercier waaw looy wax ñi nga xamante ñu ngi lay suivre <laughs> maa ngi maa ngi sant Mm-hmm. unité 9 sama waa koñ ñëpp ñu mm-hmm. may toogal ñoom Ibrahima maa ngi leen di sant bu baax maa ngi lay remercier ci invitation bi tamit uh-huh. c'est la première fois may génn télé gis nga may xaw a mais dina wax merci quoi kontaan naa lu bëri mm-hmm. merci Aïcha Ramatoulaye nga jaajëfal ko Aïcha merci beaucoup Seck Ndana ah, kontaan nañ ci yow borom baax nga borom baax nga merci beaucoup Aïcha mi ngi noona ah. ñu rek daal di dalal ki nga xamante ni nag moom moo ñu recevoir ci deuxième partie bi ndax waxoon naa lañ ko tey euh, émission bi seen cas c'est cent pour cent jeunesse li nga xamante ne rek moom mooy ndaw ñi tey Ramatoulaye ñoom lañ koy jagleel ñu ñëw waxtaan ak ñoom échanger ak ñoom mm-hmm. parce que am nañ solo torop aussi comme on dit ndaw moom mooy nekk magu ëllëg suba comme on dit sama olof yi na xaw a takk ah, si <laughs> mais ndaw mais ndaw daal comme on dit moom nekk voilà c'est ça te kon euh, il est temps et très important aussi a mm-hmm. ce qu'on les encadre a ce mm-hmm. que demain mm-hmm. euh, ñu nekk ay mag yu am solo ay mag yu am fulla mag yu am fayda mag yoo xamante ne nii tey ji dinañ xam fu ñu teg seen tànk ba tax na rek kenn du leen yëpp nous sommes l'avenir de demain Mariama euh. ñoo ñoo ñoo ñoo yor mi réew mi mhm. euh, nous sommes l'avenir de demain tey jii nii suñu ndaw bu baaxee rek donc euh, mhm. instant bi Sénégal day am espoir mhm. donc ñii la ñu war a waxtaanal comme ça ñoom ñii sax bu ñu toogee di wax ñu gis ni ce sont des jeunes conscients dañuy mën a yee yee ñooñu nga xamante ne ñooy seen i morom am na solo léegi laataa may dalal ki nga xamante ne moom mooy suñu invité rek tey Euh, mi ñu wax ni rek euh, sujet bi la boo xamante ne ni benn sujet aucun sujet n'est tabou ci biir seen plateau seen cas muy mag muy xale lépp loo xam ne war nañ ko waxtaane rek dañ koy waxtaane ak ñoom échangeante ko ak ñoom ma dalal sama sëriñ laa koy wax Jamil si maa ngi lay nuyu <laughs> waaw maa ngi lay fay di seen toogaay ko mm-hmm. di la nuyu di nuyu ki nga xam ne mooy Ramatulaay. Mm-hmm. di nuyu tamit ñu fi jot a teew nga xam ne wax dëgg fa yàlla plateau bi buñ sañoon ñu ñëpp la ñuy invité. Mm-hmm. mais nu mu demee la rek nu mu demee la rek. Mm-hmm. waaw di la jaajëfe bu baax. ci am na solo euh, gis nga li nga xamante ni moom lañ fi jot a avancé ci première partie bi seen cas gis tam bi nga xamante ne tey moom lañ soulevé maanaam mbiru sëriñ mbiru liggéey mbiru charlatan mm-hmm. escroquerie yi tey nga nekk ndaw euh, nekk euh, avenir u suba nga nekk ci ay yoon mm-hmm. tey ji yow lan nga ci am loo xamante ne moom nga ci doole waaw lu may dolli ci loolu leen rek la quoi ñun xam nañ ne ñun jigéen wax dëgg fa yàlla fulam ak faydaam ak mhm. jomam ak dignité moom lañ soxla ci moom tamit mhm. fii ñun ñëpp xam nañ ne liggéey mais li nga xam ne dafa baax a fait mhm. boo liggéeyee te nangu jaamu yàlla lépp li nga xam ne bëgg nga ko rek di nga ko am quoi mais je ne peux pas comprendre que ni yow nga ne gëm nga yàlla suñu borom ba pare nga ne da ngay dem ci ay sëriñ ah pour ñu defaral la loo xam ne c'est pas du tout normal quoi a fait parce que mënuma comprendre nga dem ci sëriñ wax ko sa besoin et tout mu teg la xel dem ba xam ne yow da nga da nga vierge mhm. en même temps aussi maay jégalu en mhm. même temps aussi mu bu bëgg la dévierger jar na mu mu bëgg daal nga nga mhm. ñëw si këram yoo xam ne demeewul noonu quoi mën nañu ko seeg ba pare mu des di la chantage te ji nga sëriñ boobu noonu bu demee ba am fit boobu noonu di ko def c'est parce que am na ñu mu ko def ba pare te loolu ce n'est pas du tout normal ce qu'on doit faire lenn la ñu loi tamit am na ci plein am na am na ci responsabilité bu mag ci mhm. responsabilité bu mag parce que booy xool am na benn chaîne bu doon teg li ñu naan Mœurs la mhm. brigade des femmes mhm. genre théâtre boobu noonu tamit joué na fa benn rôle bu important quoi benn es tamit jigéen ñi am nañ ci benn part de responsabilité parce que genre je ne peux pas comprendre yow nga ne jigéen nga gëm nga yàlla ba pare ngay def yenn yoo xam ne san ne se fait quoi parce que lépp loo fii lépp loo gis rek Ah, yàlla def na ko ba pare. Mhm. lépp loo war a am yàlla def na ko lépp loo warta am aussi yàlla def na ko. Mhm. donc man lu may wax sama mbokku jigéen ñi leen la quoi. Mhm. gis nga ñun góor ñi. ñun yàlla daf ñu bindee benn affaire ko en fait. ñu ñoo presque man mën naa ne ñun ñoo mel noonu quoi. fii góor ñëpp a yam. góor a yam. ñoo mel noonu quoi. a quelqu'un qui avoue. genre ñoom di jëm mooy tey xam naa lii dafa fekkoon. <laughs> c'est la vérité c'est la vérité ñu nangu ko que ah. ñu bañ ko nangu yëpp. Mm-hmm. c'est la vérité quoi wax dëgg fa yàlla ñun bu dul dara ñu xool na ñun jigéen ñoo ñu jur en fait. jigéen moo ñu jur quoi. parce que mënuñu comprendre ngay jël jigéen di ko def yenn yi. Mm-hmm. man loolu. mënuma comprendre que ni kooku di ko def am na xol quoi. Mm-hmm. dëgg la yow sëriñ bi yow dem nga ba yàlla may na li nga xam ne mm-hmm. di nga gis nit ki loo xam ne mm-hmm. c'est normal quoi nga gis ak nit ki benn affaire yàlla may na la yàlla may na la xam-xam bi quoi ba pare nga nekk naan ay eh, da ngay defaat leneen loo xam ne bokku ci ku deew ak sa bàmmeel quoi en macha allah loolu muy def yëpp xam na ne moom ba balaa moo dee tamit dina ko jis dina ko gis dina ko gis wax dëgg fa yàlla quoi waaw loolu laa lu may te di wax jigéen ñi tamit ñu xool bu baax fu ñu teg seen tànk. parce que dëkk bi avancé na benn avancement boo xam ne. Mhm. gars yi dañoo war a yeewu en fait. Mhm. parce que lii du benn du ñaar ñu koy dégg ci télé yi. Mhm. ak ci dëkk bi tamit. dafay bëri trop trop trop. mais li ngay wax ni aussi tu penses pas que am na ay góor aussi yuy dem ci sëriñ pour ne ma defaral ma jigéen bi lii ak lii ak lii. waaw loolu moom du fi jeex. wax dëgg fa yàlla loolu du fi jeex. góor yi dem ci sëriñ ne defaral ma lii. du fi jeex quoi mais booy xool jigéen ñi. loolu moo leen góor comme góor mën ko gën ci jigéen la gën a bari quoi mm. parce que yaa xool jigéen boo xam ne day yor jëkkëram mm. dem ne ko bu munul yem ci man yàqu ko quoi mm-hmm. ah oui xam nga loolu tamit bëri na fi tamit moo tax góor day am benn inde boo xam ne ci jigéen boo xam ne bu ko mënee utiliser contre moom rek da koy def mm-hmm. Mm-hmm. exactement quoi loolu la quoi en fait léegi Mm-hmm. suñu mbokk jigéen ñi mooy lenn quoi. Mm-hmm. ñu am fulla am fayda. Mm-hmm. changer comprendre xam fu ñu teg seen tànk bu baax. ndax loolu loolu mooy loo xam ne moo leen di avancer loo quoi. wax dëgg fa yàlla. am na solo mais ma des rek ba tey ci benn point boo xamante ne point bu am solo la. bu ñu gisee sëriñ yi nga xamante ne da ngay dox dajeeg ñoom comme on dit ñu proposer la benn affaire tey jii dañ koy gis euh, entre xarit. entre mag ak rakk au sein d'une famille yàlla may kenn ki heure am jotagul mm. dina ñëw un bon léegi yow mi nga xamante ne nii nag euh, da nga gis sa frère mu am yàlla may ko mu nga ne pourquoi moom te man ma nekk fii. ma daaxoon ko jàng ëpp ko ay diplôme mm. mais wërsëg yemul tey jii da nga koy gis ba tey euh, ci biir ay xarit vous êtes venus nombreux fii nii yéen bokk même li nga xamante ne moom ngeen suivre mm. boo koy ambition nekk ay xarit yoo xamante ne tey kenn mënu dugg seen biir euh, ngeen dem ba toll nag foo xamante ne ni màgg ngeen dem ba toll foo xamante ne nag ku nekk yàlla lam la wërsëgalaw jël ko teg ko sa biir loxo kenn ci yéen mënu ko muñ ndax kat kii ñoo jàngandoo te ba ñuy jàngandoo ëppalewu ma dara mm. est-ce que loolu yéen a ngi ci jël li nga xamante ne moom mooy conscience te xam ni kat yàlla mii nga xamante ne moom mooy maye moo la may xañ sa moroom donte sa xañu la mais lim la may may ko sa morom ndax ni comme on dit ni suñu juróomi baaraam yi tolloowul noonu la wërsëg yi ñàkk bañ ñu tolloo mm. tey ji yow loolu entre yéen il vous arrive waaw loolu moom lu ma ci mën a wax lenn la quoi. Mhm. nit ki mën nga màgg ak moom yor ak moom ba ay mag nga ëpp ay diplôme fuuf. Mhm. moom mu tekki wàcc la fi. Mm. loolu c'est le destin en fait. Mhm. loolu moo ko bindee moo moo ko bëggee. noonu ko mu teg noonu la ko bëggee en fait. loolu looloo tax sax ngay gis nit ñi parfois di soxrante seen biir. Mm. c'est parce que mënoo mënoo màgg ak nit ki. dem ba tollu niveau boo xam ne moom mu am bàyyi la fi. Mm. yow nga toog fii di tuumaraanke seen waa gàlle ñëpp. et tout quoi. Mhm. te loolu booy xool tamit famille yi am nañ ci benn genre part de responsabilité. Mhm. parce que genre buñ lay bu lay comment dirais-je buñ lay genre buñ la doon encouragé. Mhm. essayer comprendre di la encouragé ci benn ci benn affaire ah nit ki fii àdduna leen la quoi. boo xool dangay xool koo xam ne yow yaa ko mais bul xool ñi la tane mhm, surtout mhm. loolu boo koy def rek yow doo sonn mhm. ñun lool dañu ko jàngal quoi bu ñuy xale nit ki booy xool dëgg la da ngay nekk xale sax di dem di jàngi kii sol lii yow solo lii mais ñun dañuy wax lenn quoi nit ki booy xool xoolal koo xam ne yow yaa ko tane mais bul xool koo xam ne moo la tane quoi te ñun Sénégal ñun dañoo soxorante seen biir le fait nit am nii leen yow nga yéene ko jàmm sax moom ci biir xolam mu ngi lay reetaan loolu en fait quoi loolu. loolu fi am solo la reetaan bu c'est ça en fait mhm. mhm, mhm. ko. la yàlla wërsëgalee. yow nga jëm ci def lu baax. loolay loolu loolu loolu am solo quoi. am parce que gis nañ fi ñu fi tekki te xaalis boobu noonu duñ ci def dara lu baax. lu bon rek lañ ciy def. gis fi tamit ku fi yor lu néew. di ci def lu baax. lu baax rek lay def quoi. donc loolu laa amoon lu may. xam naa ni rek euh, foofu laay jeexale da nga wax léegi lu am solo parce que dégg naa la ci sa ay biir wax nga souligné loo xamante ne nii euh, da ngay euh, delloowaat li nga xamante ni moom mooy responsabilité bi ci parents yi mm-hmm. parce que da nga ne aussi parents yi am nañ ci part de responsabilité mm-hmm. xëy na bu ñu gëmloo seen doom nga gëm sa bopp ci de ci bas âge bi nga xam ne ko ni gëmloo ko yàlla suñu borom aussi parce que jullit loolu la gëm na ko ni ay nit parce que nit boo xool si sa koñ nekk ah. Hmm? da xool kër goo xamante ne ni yaa leen tale gees gis kër goo xamante ne ñoom ñoo la tale. tey jii parents yi am na ci part de responsabilité parce que parents yi bëri ñuy pousser seen hmm. hmm. gis nga sa morom bi lu mu am gis nga sa morom bi lu def tey jii euh, parents yi ñu wax leen rek delloosiwaat ba nga xamante ni seen doom du am taxawaay boobu noonu. waaw parent yi moom li ñu war a def lenn la ko quoi. Mm-hmm. genre ñu def comme suñu maamaati maam yi lu ñu doon def. Mm. yor la ci diine. yar la ci tarixa mm-hmm. yar la ci li nga xam ne mooy yoon di la encourager parce que fii gis nañ fi koo xam ne da am sa doom mm-hmm. mais kii woo ko quoi joxoo ko gëdd mm-hmm. est-ce que je me fais comprendre xaw ma nag ba xam-xam nga fu may waxee. parfois di nga am di nga parfois sa doom dina dem am benn moyen. Mm-hmm. boo xam ne kawe na nga naan waa kii la mënee am lii. Mm-hmm. est-ce que je me fais comprendre. Mm-hmm. loolu tamit day am ci parents yi quoi. donc parents yi leen rek la ñu war a def. moo di encourager seen doom yi. est-ce que je me fais di leen encourager. ñuy jàng. buñ jàngee ba pare ñu teg leen ci de bonnes conditions. ñi nga xam ne bu ëllëgee fu ñu dem mën nañ fa toog quoi. malheureusement lu nga wax ni affaire mm-hmm. parents aussi am na ci ah. mm-hmm. parce que de parfois nga gis parent bu am ay doom. Euh, keneen ki situation am ça va. Mm-hmm. keneen ki ça va pas mais. tey ñoom ñaar bu ñu génnoon. Mhm. kii liggéey kii xëy di liggéey moom la ñuy jëncal añaa. Ah, ah, ah. mhm. keneen kii boo añee baax na. voilà baax na et malheureusement c'est ce qui pousse aux enfants à dem dugg ci banditisme. Mhm. commencé dem ci sëriñ. pour ne ma defaral ma sama frère bi lii ak lii. parce que sama moom moo gën a am kàddu suñu kër. malheureusement ça fait très mal te parents yi nañ ci bàyyi xel. nañuy déedéet yemle xale yi. xale jigéen ñi aussi nañuy muñ. Mhm. adduna bi. li xaar voilà du course de vitesse. surtout instant bii nga xamante ne décembre bi xale jigéen yëpp a ngi sëy. macha allah mhm. félicitations à ku amul aussi toogal nga muñ. Mhm. toogal sa pooju ndey ba loo gën ci yow fekk la fa. gis nga yàlla nelawul. ku ci nekk sa wërsëg bu jotee wallaahi azim dina yomb mariama jarul dem ci sëriñ jarul dem keneen sa sëriñ na ngi mi ngi sa wetam ah. moo la gën a jege ku nekk laaj ma kan la mhm. sa ndey ak sa baay mhm. saa yoo jullee sax ku leen ñaan ne leen mhm. ñaanal lañ ñu lay ñu lay ñaanalee wallaay lépp a yomb ci yow incha allah jarul dara ay ceex gis ngeen ko mu nekkoon tey nag li nga xamante ne rek moom mooy seen cas mu nekk nag ñu toll ci li nga xamante ne moom mooy cappaandaw gi ramatulaay tey émission bi amoon solo lool euh, avec plein de de de renseignements avec euh, plein d'ambition aussi ak de prise de conscience parce que plateau bi ñu nekk ay ndaw nekk ay xale mais nekk ay xale yu am jom nekk ay xale yu am xel macha allah ñi leen di jaajëfal di leen remercier di rafetlu tey li nga xamante ne moom mooy euh, seen taxawaay seen teewaay ci biir plateau bi ma bàyyi euh, suñu invité bi mu tàggatoo tout d'abord laataa meñu ci yow Ramatoulaye waaw lu may njëkk wax mooy maa ngi leen di remercier bu baax. Mhm. parce que thème bi dafa nekk thème boo xam ne dafa am solo trop trop trop ci réew mi ñu xam ne moom lañ toll quoi. Mhm. di rafetlu bu baax a baax a baax toogaay bi wax dëgg fa yàlla rafet na trop. Mhm. waaw di nuyu sama xarit yëpp di nuyu waa parcelle di nuyu di nuyu suñu suñu waa classe yi. di nuyu ñëpp daal di nuyu sama copain Abdourahmane. di nuyu ñëpp daal. waaw wax dëgg fa yàlla ñu ngi leen di sant bu baax. waaw di leen gërëm ca kaw ca kanam rek comment dirais je. Equivox Equivox. ca kaw ca kanam rek wax dëgg yàlla seen liggéey moom rafet na trop trop trop parce que genre mënoon ngeen ñu xeeb wala dara mais la l'avez pas fait quoi en fait. donc nous remersion remercions. Mhm. dëgg fa yàlla. Okay, merci. Allez, merci à vous aussi euh, d'avoir répondu présent ci suñu biir plateau Ramatoulaye lan ngay tàggatoo tey ak suñu mbokk internet yi. am na solo di leen remercier bu baax baax parce que ay xale lañ mais am nañ un certain ouverture d'esprit. Mm-hmm, mm-hmm. ñun ñëpp ay xale lañ ah je peux dire mais am nañ un certain ouverture mm-hmm. euh, parce que y de ces jeunes yoo xamante ne bu ñu toogoon fii à leur place. ils peuvent même pas parler parce que peut-être am na benn euh, euh, capacité de réflexion boo xamante ne amuñu ko. macha leen jaajëfal et puis di leen ñaanal jàmm aussi. Mhm. Euh, ci jàng bi ngeen nekk yàlla defaral leen ci xewal. Mhm. ak jàmm et puis di nuyu suñu mbokk internet yi bu baax a baax euh, di leen jox rendez-vous demain incha allah. incha macha allah nekk comme lu leen ko waxee tous les jours ce sera du lundi au vendredi si seen biir plateau euh, matinal deuxième partie wu seen cas di leen jaajëfal di jaajëfal suñu caméraman yi di waa régie di leen jox dig daje demain incha allah restez sur Equivox TV.